mbokk yi mënuñoo am lu gën a rëy islaam mënul nekk benn benn benn yoon xoola mbokk yi ñii nga xam ne dañoo ni sa yàlla daa am doom sa yàlla daa am jabar xas sa yàlla saaga sa yàlla ba sa yàlla mer ba ne in yaquluuna illa kaziba ñooñu tey bëgg a nekk ñu la gënal kuy wax ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah tey da nga gis ci ñun ñoo xam ni ay jullit la ñuy woote woo mais bëgg bi ñuy bëgg ñi dul jullit mooy ëpp doole bëgg bi ñuy bëgg jullit bal mën nañoo bëgg yahud mën nañoo bëgg nasara bay woote woo la ñu nekk gëm leen fonk leen ku ne mën nañoo ànd ak yow ba mu des ku ne ana rajulun muhammadi saa boo ne ana rajulun muhammadi rek am nga ay noon lu la neex defal jullit nga am nga droit mun nga nekk jullit te doo jullite doo woor no problème maandu leen yàlla mbiram yaatu na mun ngaa nekk jullit ne maay yàlla no problème maandu leen islaam yaatu na mun nga nekk jullit ne am na yonent no problème maandu leen islaam yaatu na mun nga agressé islaam waxtu wu nekk waaye boo nee muhammad laa gëm muhammad laa gëm moom lay topp ñu ne daa contre mag ñi daa bañ mag ñi dafa xeeb mag ñi dafa nangam dafa nangam ñepp samp ndënd fasiyene la nono so buggé ragal ci lu melni do waxal muhammad dila yalla So wax so buggé ragal ci lu melni do waxal yalla wax lo wax ak beccëk dana am ñu jóg bép daayi bu fasiyene ni bo waxé nit ñi mber nga taxaw do dem ku wax dañ lay guddé ak beccëk guddé ak beccëk ki ngi koy woon ben message fani dañ may saga ndey di ma saga bay lu dal ak beccëk guddeeg bëccëg guddeeg bëccëg ba su ma sœur nee na day nangu téléphone bi dootu muy lu ne lañ ma lan laa wax lu grave lan yonent bi nee na Mahdi nii lay mel ay nit jël loolu féetal ko seen bopp yonent bi nee na beneen yonent du am sama ginnaaw ay nit jël ko féetewoo ko keneen a koy dégg ku xamul naan diw moom wax lu ëpp rek lay def mbokk yi lan mooy wax lu ëpp laa nabiya baadi mooy wax lu ëpp ah laa nabiya baadi mooy wax lu kon Muhammad daa wax lu ëpp nga indi hadis boobu mu wér nga wax ko ay nit taxaw ne sonal nga ñu da nga ñoo sonal bis bu nekk nga wax waaye nangam subhanallah mahdi minni min itrati ismuhu ala ismi wasmu abi ala ismi abi lii la yonent bi wax tuddoo taasuloo ñu ne man nga wax fan lañ jëm fan kañ ngay wax diine kon da ngay bëgg noppi rek ñu ne non non maandul quoi léegi daal maandu mooy nga nekk naa féq noppi ci lépp man loolu laa comprendre maandu léegi mooy nekkal naa féq lu ñëw rek maasaleel masla non amul problème quoi diina ju loo ne mun na nekk yàlla nañu yàlla defal rachadan ci suñu bépp mbir ñu dund wala ñu dee yàlla nañ ko yàlla defal ñu rey ñu wala yàlla jàmmal ñu ba ñu dee yàlla nañ ko yàlla defal waaye luy munti am rek na fekk yàlla gërëm suñu deewee nu ñu dee baax na waaye kon danañ dem àjjana ci nettali lay mujj saxaaba yi dee bu ne dee nañ waaye ñoom ñëpp ñu nga àjjana mu ngoog léegi loolu yàq def day tax nga jàpp ne lii moom dëgg-dëgg lu ñu war a gëm ndax bàyyi da ko daa def maam da ko daa def mu da ko daa def maam daa def boo ko bàyyee bu nit ñëwee ne la lii da nga ko war a bàyyi ndax sayidna Muhammad daawu ko def sallallahu alayhi wa sallam xam nga lay waxal kii daa contre maam daa kontar baay ak maam bu dee ci sunu bu dee ci jamono yii dañuy wax ki daa kontar mag ñi daa weddi mag ñi ah, ah, mag ñooy ñen mag ñi mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Seydina Aboubacar ak Seydina Omar ak Seydina Ousmane ñoo ñooy mag ñi di am du ñooy mag ñi sunu ñu baax ñi itam liñ doon def mooy jéem a teg seen tànk tànk ñooña Seydina Malik Si suñ maam ahmad bamba yal na leen yàlla dolli leer seen bàcce raay ba la ñu doon def seen dund gi lépp mooy jéem a teg seen tànk ca fa sayidna muhammad tegoon tànkam sallallahu alayhi wa sallam waaye li ñuy doon doon suñu sëriñ li ñuy jàngal jàngal jàngal bu ñu jàddoon yoon wi ñu topp leen ci bu àllaaxira daanu xam ne yàlla du moroom boroom la yàlla du moroom boroom la yàlla sàkk sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam موثق سيدنا ابراهيم موثق سيدنا موسى موثق سيدنا عيسى موثق سيدنا الحاج مالك موثق من احمد ضمه يلا تكي كيف كزح بوب دي دوم ادم تسن لين جار لو تكو جاد يونم بو الاخره مثلكو يوم يلا لوم بو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات yàlla mo wax ñant bu ne ko bu dul woon nag ne ma la téye ci yoon wi am na benn bis tuté té nga jàpp tuuti jeng tuuti te cëy boko defon boko defon ma mosal la mbugalum adduna mu ñu dugle ak mbugalum allaaxira mu ñu dugle te do am ko la dimbali sayyidna muhammad lay waxal sayyidna muhammad lay waxal ana suñu sëriñ wala khira benn serigne bi yëkati kaddu kenn ku ne nafsi nafsi nga wax sa bopp laatal sa bopp laatal mbokki julit yi yàlla du mboroom borom la moonu sàkk te moonu moom te daa am fu mu bëgg nu jaar fa te foofa wax lawu ko kenn moo ko waxal boppam muy alquran bind lawu ko kenn moo ko bindal boppam lépp lu wuuteeg alquran lépp lu wuuteeg li sayidina muhammad andi alayhi salaatu wasalaam ku ko mën a wax koo mën a àndal waxoo dëgg lii mooy li wér wante bu yàlla dogaloon ab muslix ñëw bëgg a jàngale ci sunuy aada ak sunuy gëm ngëm lu wuuteeg benn xadis bu wér bu jóge ci yonent bi jaar ci buxaari nekk qat'iyu dilaala lu mu wér wér wér wala mooy aaya lu mu wér wér bu wuuteeg benn ci sunuy aaday maam nga bëgg ko wax daañu la baatal dëkkal li ngeen yow dëkkul daa ne la yow da ngaa weddi mag bu yàlla dogalee ñu ne leen waaw man su ma andee nga jéem a tontu li alquran daan tontu sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ca ba muy woo waa quraysin da ni xërëm yi ngeen di jaamu mënuñu leen a lor mënuñu leen a jëriñ xërëm yu duñu dégg duñu gis xërëm mënul dara xërëm aw xeer bant rek la xam ngeen lu ko waxa bàyyil sunu yàlla yi ngay xas nun lii ci leen fekkoon sunuy baay ak sunuy maam yow da ngaa kontar bàyyi ak maam yi da ngaa kontar mag ñi qul yàlla na ko yow Muhammad nee leen awalaw jitukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum waaw su ma leen andilee lu gën a jub li seen bàyyi ak seen maam yi nekke woon nag kon tam du ngeen ma dangoo déglu tontu loolu ku doon woote ba fekk benn aada bu sax ci Sénégal bu wuuteeg wala benn jëfin bu sax ci Sénégal bu wuuteeg li Seydina Muhammad indi sallallahu alayhi wa sallam wala bu wuuteeg li Alquran wax nga bëgg koo dendale dañu lay wax yow da ngaa contre man boo ne li ñaan ci bi indi woon nag boo boo ñeme ñeme la bu wax daay daay ne la yow nga mbokki jullit yi kon boog source nga xam ne ak ngëm ak i pas-pas dina ci bàyyi ko yàgga def yàgg fekk judd fekk ci sa baay sa baay fekk ci baayam foofu pas-pas dana fi jóge te foofu itam du mooy fi pas-pas war a jóge beneen suuf si bu mooy ba ci seen kaw bu ñu demee nag ba pexe yooyu yëpp yàqu jeex nga xam ne fi mu ne mënatuñoo wax yooyu ndax dem na ba nit ñi parce que léeg nit ñi ñi ci tamit xelu dañuy comparer entre tuuma yi ñuy dégg ak nit ki ci boppam ni muy def ak li muy wax ndax lu mel noonu gis nañ ko ci moom wala déet bu ñu demee ba xam ne yooyu jàllatul la ñu commencé jëfandikoo ay menaces ak ay ndax xëy na mënatuñoo dugg ci xam-xam boo xam ne nit ñi dinañ ko mën a dégg pour déstabiliser kiy woote ci dëgg léegi ñu commencé menacer ak a xuppaate ñu bàyyiwul wax ji ñu fiy wax dinañ jug faj ko ndax nangam sàngam nangam sàngam waaw boo waxee alxuraan ak sunna ñu jël ko jëmale ko ci ne da ngaa saaga diw wala da ngaa wax ak diw te yàlla xam na ni tudduloo kenn waxuloo kenn lan au diw moom ñu naan sax léeg-léeg da nga koo saaga wala dara wallahi alazim bari na ko la koy wax fekk yow diw moom yaa ko ko gën a jege bu fekkee dellu nga ci kooka lam bind wala lam fi bàyyi ci ay njeexitalam ak dëggu ga nga xamoon ci moom di nga xam ne moom dalaa bëgg a jaxaseeg diw moomu pour yëngal xooli nit ñi mais bu dee xool ci dëgg rek dëgg diw moomu yaa ko ko gën a jege yow daanaka kooku yéen a bokk yoon wi ngeen nekk mais li yooyu yëpp boo gisee stratégie bi mooy jiitu ci xolu nit ñi bu nit ki ñëwee di wax ak nit ki ci xelam pour xel mi nangu dëgg nga yëngal xol bi bu ko defee xol bi bu sentiment yëngatoo rek xel mi daal di tëjuwaat loolu problème bu rëy gàllankoor bu rëy rëy la moo tax kon xeetu nit ñi nga xamante ni léeg-léeg ci wàllu ay intérêt calculu ay privilège ak yu mel noonu ci lañ xas ba toog te bëgguñu koo ñàkk ci ñi daan naka jekk ba jamono ji ñu toll di gàllankoor dëgg ba nit ñi duñ ko mën a xeloo jariñoo ko bokk nañ ci li nit ñi nekk ci caaxaan daanaka ñoo leen ci may fit ñoo leen ci may fit ngir nit ñi gën a nuur ci loolu ndax li yàlla waxoon fastaxafa qawmahu fa ataauhu innahum kaanu qawman fasiqin nit bu fekkee dafa nekk ci lu doye di dafay doye di day neex a doye dal moo tax yàlla ne firawna dafa doye dal xeetam ndax ni ñu meloon ci boppam moo tax mu mën leen a doye dal mooy dañoo nekkoon nit ñu kàccoor topp seen i bànneex rek ak caaxaan bu ko defee mu mën leen doye dal gën leen a exploiter audace bi kat yi am ba man di wax nit ñi ay caaxaan ñi koy dëggal ko fottasoo ko daanoo ko di mbëkk ay miir yu kenn xamul caaxaan yooyu ñi dëgg leer ci seen bopp war nañ ko wax nit ñi ñu xam ko dama ne allaaxira ku la fa rëddal meetar ne la ma koy may wax na la lu du dëgg allaaxira yonent bi neen saa salaam suuf la su talli ñareet weex tal laysa fiiha alamun li ahad benn mandarga wala drapeau bu lay wan ni bàyyi diw moom moom fii amut foofa léegi nag saddiqi nabiya aw saddiq gayrahu dëggalal yonent baa nga dëggal keneen waaye moom loolu la wax moom alaaxira nu fa yeggee ka nga yaakaar ak kam yaakaar ak kam yaakaar ñoom ñépp dañuy tiit dañuy jaaxle hatta al anbiya wal mursaluun yonente yi alayhim salaatu wasalaam dañuy sukk seen bëti oom yi tiit di ñaan yàlla yàlla musal nit ñi yàlla musal jaam ñi te kudul ab yonent yonente la gën a foor nit lu mu baax baax baax buñ ko poussé ba mu yegg fa mën a yem nañ ko fa yamale ndax kat malaaka sax daa am fu mu yem gisoon ngeen wa maa minnaa illaa lahu maqaamun ma'luum nit kenn du ko waxat naka su du noonu day yem fa mu war a yem liñ naan gone day yem palaasu gone magit day yem palaasu mag kilifa day yem palaasu kilifa waaye soo waxee ci sa bopp lu ëpp wala nga bàyyi nit ñi di la waxal lu ëpp nga di ko dégg damay wax ne am na yu ëpp yoo xam bu dee waaja moo ko wax juum na su fekkee dañ ko ko waxal tooñ nañ ko. mbir mi ay naxe la lu la waay wax fii lu dul toppal yàlla royal Muhammad dalay nax ku la wax lu dul loolu leen boole. waaye gis nga toppal yàlla royal muhammad amul lu ñuy yëkkati di la ci jox déedéet mbir mi mooy nañu ànd jaamu yàlla dee dem àjjana yowmal qiyaam bu ñu dajee foofee doon jaamu yàlla tey dénkante dëgg ay xarit la ñuy doon benn ahlu sunna bu gëm ni danga nga dekk yonent bi ñëw yàlla di la laaj mu lay tontul gëm ngeen ko ah ah ñi koy def Muhammad da leen ko dàqam Muhammad ku ko yónni ku ko bëgg neena ko danaa jéggal jaam ñi ndax yow ak ah, wax ku ko topp kay xanaa dëgg dëgg na bu malaaka yi moo amee ne bàyyi suma taaj ah defu ko de léegi nag comment ça fait-il lu Muhammad Munul defu ko keneen ñëw ne dana ko def ah keneen ñëw ne dana ko def yeewul dañ lay nax seetlul démb ba léegi démb ba léegi ñi sonal ahlu sunna ñan la <laughs> du yéefar yi de du yéefar de ahlu sunna contact yi ñu am ak ñi dul ahlu sunna ñëpp ñoo ñoo ko indi waaw ahlul ahwa wa zaygi wa dalal loolu la ñuy bañ may wax toujours waa ji na Umar Sall fu mu waxee rek tuddee ñu ahlul ahwa man daa ah man tudd ma seen tudde man ahlul ahwa laa wax boo ci bokkee nag ca nga ahlul ahwa mooy ñiy dund caaxaan ñii dund bakkan ñii dund maam nee na ñooñu ñooy ahlul ahwa maam nee na yàlla yónniwut maam ñépp am maam waaw ñépp am maam yàlla yónni wut maam soo bëggee jël mbir yi teg ko ci maam wala nangam ci ahlul ahwa nga bokk ñaareel bi xoolal la nga gëm ca la maam wax ak li Muhammad wax sa yaay àtte sa bopp mbir mi yomb na jarul diskite jarul coow jarul xuloo jarul saaga mbir mi ay texte la su ma sàll waxee gëmoo indil ko ay texte yu wedd yi mu wax waaye saaga wax fee loolu du du du mësas dañ ba ba ñuy dee insha allah sunna sunna lay doon lu dul sunna caaxaan lay doon kenn mënul am lu dindi loolu loolu nag nga seetlu démb yàgg naa ko misaal boroom xam-xam yi fitna yi ñu leen mës a teg yépp ñan ñoo koy indi mooy ahlul ahwa ñoom ñoo koy indi diw dafa contre diw àndul ak nangam diw nangam nangam ndeysaan mu jaral la sax nga ni naa ko rey fekk seytaane moo la nax seytaane moo la nax gis nga ngëm gi ngay woote bu noonu dëgg ci yow danga xam ni kii jullit la ni yow da ngeen a bokkul gisin te àdduna noonu la àdduna dañuy dund bokkuñu gisin politiciens yi dañu ngi ne di dund bokkuñu gisin caaxaankat yaa ngi dund bokkuñu gisin mais ñun ci diine mën nañoo dund duñu bokk gisin parce que kenn ku nekk la la doy ca nga nekk comme nag yow yaa wax ni lakum diinukum walee dini yemal ci sa diine bàyyi ñoog suñu diine kon nag mbir mi loolu la le problème yépp moom mooy noonu ahlu sunna mooy ahlul ahwa wa zaygi wa dalal lan moo tax ñu noonoo leen parce que la ñu doon am moo tàmbalee yàqu nit nag bu fekkee da ngaa ubbi woon robinet sëgg di naan ñu ñëw ne ndox mi daa nëx ku ko moytul leen nga dee gaa yi bàyyi ko kooku mooy sa noonu waaw ndax robinet moom bu ñëpp xamee ne ndox mi daa nëx dootuñ ko naan loolu nag mooy indi fitna yi ngay gis yépp coow lu bari léeg wax jéeg lépp lépp lépp benn waaye dafa ne Oustaz Oumar Sall ma ne ko ah mën na ma loo def gaa yi nit ñi daal dañuy wax ci YouTube bi di wax di la saaga di wax nangam ma ne ah damaa leen neexul rek waaye tudd ma leen de li leen neexul laa wax rek xëy na li ma wax arrangé lu moo tax ku nekk jóg waaye loolu mënta tax ma bàyyi pas-pas bii ma am gëm ko di ko wax mun loolu mënta tax mënta tax kenn mënu maa attaqué ne maa wax sa bàyyi nangam wala sa maam nangam sunna daal danaa ko wax ku fi naxe it bu ma ko xamee danaa ne dangay naxe moom insha allah ku fi naxe danañ ñi dangay naxe ku fi sa maam naxe it danañ ñi daa naxe mu neex la mu naqare loolu danañ ko wax su fekkee loolu mooy ak noonoo nag nga jàpp ni Omar Sall dana fi indi guerre civile dana fi nangam bu Macky sàll jàppul Omar sàll dana fi indi guerre civile Omar sàll bu noppee junni Omar sàll wax mbir mi sunna la de ñépp a ko xam xale yi toog nii ñépp ko xam bu Omar sàll noppee keneen dana ko incha allah loolu yàlla moo koy defal boppam du yow du man du keneen kon nag problème bi nekkul ci indi guerre civile ah benn guerre civile amu benn fitna amu fi li fi am mooy da nga doon wax di xëcc ay nit di leen feccloo diine boo xam ne da tëgg di fecc di tëgg di fecc nga ni diine rusoo ko wane ci tele bi même ku gëmul diine bu ko seetaanee day rus même ki gëmul diine bu ko seetaa Facebook baa ngi nii internet baa ngi nii tele yaa ngi nii ñi ne dañoo am yeneen diire yu diine maam yi dañu xool ñan ñoo fi fecc tëgg ñan la gisu ko ci ahlu sunna de kon le problème moom mooy kay def loolu na xam ni moom moo takk mu jéem a sangu mbir mi diine la wallahi ku jóge fii ci ñun ci bàmmeel nga jëm te danga leeralaat lépp mbokk julli ci ñu ànd bàyyi xel bàyyante xel bàyyi xel ci réew mi ñu ne bàyyi xel ci réew mi ñu ne réew la moo xamante ne réew mu naqaree waxee réew la moo xamante ne réew mu naqaree waxee waaye nag nañu xam ne ahlu sunna wal jamaa fa ñu ne woon rek fa lañ ne mooy yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi nee na lii mooy suñu wax suñu wax guddi ak bëccëg mooy yàlla nee na yonent bi nee na te xam ngeen ne bu dul woon ak ñi naan yàlla nee na yonent bi nee na يالا تخاج نا اسمان مك سوفم باتاي باتاي يالا تخاج نا اسمان مك سوفم لي يالا واخ آه، وما كان الله ليهلك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون يالا دوون عليك او نيت تا فك نيت نيت سن بير ني امنا ني باخال واهلها صالحون وقل فك من ني باخ ديدف واهلها مصلحون فك يا ريوما باخ دي باخال كون بو باخي يا دوغ سا waaye nag kii subhanahu wa taala di wax fi moy ki bax ba pare di baxal ki bax ba pare di woti ci mbax boo waxe dañ naan dañu doj boo waxe dañ naan dañu kok boo waxe ñu ne bi ma lañ fay fekk ay mak dañu fekk seen baay dañ fay fekk seen baay am ñu leen jagal alquran waw loolu lu am la ndax ku nekk ko gis ku ne am na ku ko fi jiitu ñooñu ngay gis ñi naan bi maanaam ñoo fi jitu ñoo fi indi am ñu leen fi jitu am ñu leen jagal alquran est ce que dafa tax nga leen alquran indi fi ñoom liñ fi indi kon ñoom ñi mujj a ñëw indi fa lañ fa indi ñun ñu mujj a ñëw daa daa di ne dañuy askanale suñu bopp ca la yonent bi ne woon wax dëgg yàlla bu nekkoon maanu te dong am na waruñu ñoo wax lenn ndax kenn ku nekk yaay seet kala doy nga ànd ak moom yaay seet kala doy nga def ko wasila comme ni nga xamante noonu lañ ko waxee fii kon ki ñu doy du kenn yonent bi moo ñu doy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu doy loolu nañ ko wax te am ci fierté nañ ko wax te am ci fulla am ci fayda yonent bi moo ñu doy keneen doy ñu ndax nak ki ñu ko doyloo ki ñu doyloo yonent bi sallam moy yàlla yàlla moo ñu ne bu len roy kan wa in tutiuhu tahtadu mo len ne bu gen roy muhammad bi de ngeen jub kon muhammad na yàlla joxoñoon joxoñul ken yàlla subhanahu wa taala ki mu waxoon walakum fi rasulillah laqad kaana lakum fi rasulillah uswatun hasana kon yonent bi la yàlla waxoon mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam la yàlla wax keneen nak wala ñeneen nak bu ñu ñëwee bëgg jël islam bi def ko ci ay sante ne ku santul nangam warul wax ci diine كوسانتو نانغام ورسوكو دغلو ولا كو بوكول تي خيت سانغام ورسوكو دغلو ولا كو بوكول تي فامي امون داخ بو امون كو ني دغلو كو كون يونتي بي ساسام جابوتام ني نفيك خوسور كون جابوت يونتي بي دوغ لا ني دغلو واي يونتي بي واخول نانيو دغلو جابوتام واخول نانيو دغلو كين موم يونتي بي صلى الله عليه واله وسلم يالا دا فا واتبع سبيل من اناب اليا topal yoonu ki depp jëm kon kooku la ñu yàlla subhaana taala royloo moom la ñu yàlla subhaana taala topploo kon moom la ñuy topp réew mi nag réew la mu naqare waxee réew la moo xamante ne nit ñi dañuy waxee façon bu ne ba pare am ci ñoo xamante ne egg nañ sax ci di agressé léegi ay doomu adama egg nañ sax léegi di agressé doomu adama ndax agressé mun ta fekk nga fekk ni koo xam ne dafa nekk kilifa jàng am xam-xam am njaboot am ñoo xam ne ñu ngi topp ci ginnaaw nekk ay ay ndongaan di déglu nga mun a ñëw taxaw ca kanamam wax ñaaw.

te loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy lii am ci suñu réew mi di ko gis di noggatu ay doomu aadama di leen di wax ci rajo yi di leen di wax ci télévision yi ay jëf ay wax yu ñaaw di leen di dogale ci ay ndaje yenn saay sax ñu egg ba di dóor doomu aadama loolu yal nañ ci yàlla musal nit ku nekk am nga droit gëm la nga ne la la neex nit ku nekk am nga droit gëm la la neex su nekkee ne yow bu ko fa dem gëm moom muy gëm ab doomu aadama wala muy gëm ay garab wala muy gëm ay xeer wala muy gëm ay nag moom moo am droit ne man lii laa gëm mu koy fësal واو انا كي مام گن يالله سبحانه وتعالى محمد ما ورو كاي دا كوكو ورو كو فسل اه كاي كوكو ريك ورا تيتورو كوكو ريك ورا بوكرو كوكو بو بوكرو كوي بوكرو كون لول مام موي مبير ميغا خامتاني مو في ام